lu baax te nii doo sonn danga nax sa yàlla itam boo ko dee ñaan te mu gis ni yitte taxawaay nekkul ci yow du la may dara ndax principe am mooy boo ko dee ñaan na ànd ak taxawaay waaye di ñaan rek na a doon ñaan junni yàlla may ma junni yàlla may ma junni ñetti fan yàlla ca biir nekk di ñaan cun ah, goro yaa ko laaj jun ne ko boo ko indiwul doo ci sa jabar de laaj gis mag mu baax wax ko ko mu ne ko yàlla ku ko ñaan mu may la tax mu dem ñetti fan mu tëju ko yàlla may ma junni yàlla may ma junni ñetti fan yi mat am ah, kenn jox ko junni mu génn ba nga xund ba da ngay xul rek man sonn naa ñetti fan yi lëm di ko ñaan junni benn junni te junni yi ci àdduna yëpp moo ko moom dem ba ci taatu garab mu ni moo yàlla te ngaa daaneel garab gi ci sama kaw garab ga sëgg wut si ko rek mu fëx dem ba sore taxaw gis garab gi daanu mu ni gis ngeen daf ma naroon a rey ne rey rek la bëggoon ci man xaw ma lu mu mokkalul waaye du rey ma ngay xur rek di dem di dem di dem di dem ba ah. benn charrette dugg ci ñëw ba ci wetu yaraax gis fa benn cousin cousin bi gis ko muy waxtu mu ni ko mu yow loola dal léegi wuyuwu ko sax mu ni ko teg mu wuyu man xam nga ni man dama tayal te tubaab bële daf ma jox liggéey te ni bu sottee mu jox ma ñetti junni bu ko defee ma jox la junneeg juróomi téeméer mu mel ni loolu lan la lim ko wax lan la mu répété ko ko mu soog a wëlbati jublu penku ni allah akubar waaw léegi yàlla dikk na wante ñaan bu àndul ak taxawaay du nangu mukk kooku bokkul ci principe am wala da ñaan te taxaw da ñaan te taxaw da ngay ñaan te taxaw fii pour coono rek la